tey tey maanaam euh, tey la anniversaire u sama soxna euh, Ami Thiam wax mu jour mu juddoo de mais tey la suñu anniversaire mariage maanaam tey dañu am fukki at ak juróom benn fukki at ak juróom macha allah moo tax tey émission bi moom laa ko may waaw ndax jigéen boo ko takkee ngeen sëy fukki at ak juróom te na meloon ba tey noonu la mel changé wul soppeekuwul nam meloon ci daram sax noonu la mel ba tey ñu ne bërët waaye ma takk ko yàlla indi biye màkka uh-huh. ma daal koy may mu dem ziyaara Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaw ñu ne fukki fukki at ak juróom ci len mm. tey nag moo nekkoon jour mariage bi mu def nañu maanaam fukki at ak juróom benn maag sama aaw yal na ko yàlla defal cat muñal muñal na ma ku baax la ku am sutura koo xam ne wax dëgg yàlla maa ngi koy sant la ma waaj la ma waaj ma ñëw ma ñëw la ma waajuram bu góor waxoon ci moom rek moom laa téye te gis naa ko euh, ci surtout Cheikh Omar Foutiyou Tall la di ku baax wax dëgg yàlla ndax tamit nga denc koo xam ne sët la ci Cheikh Omar Foutiyou taal sa kër loolu mbégte la waaw caam toora do lam toora Bourgueda alwaar surtout Omar Foutiyou Tall boobu koo koy ami caam moo tax tey ma kontaan ma maye caay bii te moom xam naa ne dafa bëgg caaya moo la mu may ko caaya bi doy dama ne mbokk yi dañuy ñëw ci présentation produit yi dañoo am benn gan immédiatement bu ñu jugee ci gan bi daal di ñëw ci loo xam ne tey actualité bi dana mel ne tuq sa bën saañ ba benn jigéen bu ñu naan Awa Ndiaye nekk Espagne. moom la espagnol yi def benn dox ko benn prix boo xam ne. Ah. Sénégalais yaa ngi def ay Sénégalais yaa ngi def ay def ay ay manoore ci kaw de. waaw. madame Miss promotion Aïcha man. très bien Mati. kon produit yaa ngi noonu. li ma leen njëkk wax mooy félicitation waa Dream Cosmétique après lu tax ma leen di naa la ko wax d'accord waa dañ naan bonsoir tout à tous mbokkee xarit yi dañ leen ak jàmm seen biir émission bu mag bii ñu leen di présenté suñ produit yanj yi nga xam ne mooy gaamu CT plus bi gaamu CT plus bi ne ci gën a neex mooy résultat bi 10 jours rek la nga daal di am li nga soxla te dañu cooy defar li nga xam ne mooy savon bi defaruñu li nga xamante ne mooy huile bi oh. defaral ñu xamante ne mooy gel ñu ci li nga xamante ne mooy savon bi ah. mais li ci gën a neex mooy boo mënta jënd leebu ndaw bi da ngay leebu mag bi da ngay daal di jënd li nga xamante ne mii mooy leebu nga am gaam bi waa gis macha allah mais pour nga mel pour nga am mu am effet il ah. dëgg la dëgg la dëgg la te te boo gisee sax ñu naan gaam papa li ci gën a neex mooy euh, gel de bain bi abu bilaal waxuma papa de abu bilaal tey da nga nekk sa jour anniversaire am bëgguma benn problème boo gisee li tax ma naan la gel bi ak savon bi li ci gën a baax mooy gel ak savon bi mooy gel bi da koy sangoo li nga xamante bi mooy bëccëg di am li nga moom mooy bi bi li nga xamante bi fii rek moo nekkaat gam bi nii nga ñëw ci gaamu madaar waaw damay ñëw ci gaamu madaar xam nga fi mu nekk bu ñu nee jamono nawet xale yi microbe day daal di bëri ci mbedd mi mais soo nee naa la soo doxee ba daal di dagg rek da ngay di jël li nga xamante mooy suñu jetol bi ni daal di daal di jël sa benn coton daal di ko ciy def rek deret bi macha allah lay yem day arrêté boo sonnee nga dox ba sonn muy góor muy jigéen saa yoo sentiré ne sa yaram da nga sonn rek da ngay toqal li nga xamante ne bi mooy ko rek vraiment coono gi day dañ daal di féex bii nag moom nee la bu fekkee da bëggee génne tàggoo xetu gémmeñ nee la mbuuraan bañ buy métti da koy daal utiliser mu bàyyi la xet bu baax a baax waaw am nañ ci madaar defaral nañu li mooy nuuraa bi waaw picc ak tache lépp lay dindi gaamu madaar daal nee la lépp looy fóot ci paan nga di ci fóot ci ñetti paan muy benn savon nga war a jël ñetti savon boo jëlee li nga xamante bi mooy savon madaar bi macha allah jeex na. mu daal di fóotal l'écran nga ma yóbbu. waaw xamante ne mooy naa la boo gisee xam ne meew pur rek lañ ko a am li naan daal di féex oh. daal di dégg jàmm surtout màggute xale yi ku nekk xam na ne xale yi fi nekk ñu ngi dem ak mag ñi nga naan xale yi waaw xale yi baax na baax na ci mag baax na ci xale même xale yi laa la bu ñuy dem école dañ leen koy defaraale gute gute waaw waaw day neex macha allah te nee la bu dee da bëgg a defar sa cere wala sa laax wala li nga xamante bi mooy fondé yàpp la waaw jël li nga xam ne mooy gaamu l'écran bi daal di naan sa xol daal di féex waaw jàmm li nga xam na hygiène dafa baax ci nit te nekk boo ko utiliser say loxo nee la macha allah maanaam boo demee lekk ay lakk jën ba pare waaw te xam nga ñuy dem plage dafa bëri actuellement ak jamono tàngaay bi moo xam yow miy togg surtout ñun yor ban ga ban kilo kii la. Euh, bi am ne mooy thé bi. am fraise am na fraise bi. am na fekkee da ngay raxas sa oto mbaa ngay fóot mbaa ngay bale mbaa ngay fobéere lu as lu dënd lu dand lu tilim nee la moo ci aay kon namas daal dëgg neexul namuñu dara te dañ ci ut ut bu mag ut ci bu ndaw ut ci bi nga xamante ne mooy caat bi kon dama naan jaaraama ñii kon ñii kenn du ñoom soo leen waaw pare nga war a pare ko. ma xamal la. waaw am na sponsor boo xam ne. waaw yéex bi rek moo tax ñëwagul. dëgg la mooy Bisco. waaw benn biscuit bu bees boo xam ne. dañ ko bëgg a biisaat dafa am chocolat. Mhm. non non du nekkul biscuit bi bonbon la. waaw boo xam ne dafa am vanille. Mhm. am chocolat. Mhm. am am am kii. ah macha allah kon ñu ngi leen di xaar nañ daal di gaaw dañuy ñëw suba. ah boobu day ah, ñëw ah dëgg du bi day ñëw. visibilité bi fii la de. Ah, nee naa la ñàkk daal ay caaxaan ay fo ñàkk fee jaar tamit wóorul ndax ñun ku ñu jaayal leen jaay la déwén ku ñu romb romb sa njariñ. ma ne waaw waaw euh, Mati. waaw kontaan naa ci yow vraiment yàlla baax mais man doo ma dimbali ngir yàlla nga bàyyi coquette yi ngay sol. coquette yi waaw. ah ok ndax wóoru te ma daal. non dimbali ngir nga bàyyi ko. ma bàyyi coquette yi ak a yi waaw non xam nga man bëgguma la jëw. waaw <laughs> <laughs> nga ma dégg ku jëw ba jëw maanaam mën naa lay jëw ba jëw fekk ku may jëw am na ko taaw koo xam ne sa mbokk la loolu baaxul loolu laay bañ nag moo dama wax la ko fii en direct moo wax la ko en direct moo gën mën a jëw ba yóbbante bi egg si man dëgg la da nga Ah. waaw loolu kan boo kom dama gis nga ñi nga nekkal fii jigéen nekkal fii ñi ma nekkal fii vraiment yow dañ leen dàq sañse <laughs> benn uh-huh. yow da nga def rajo ñoom defuñu rajo <laughs> yow ga yàgg génn ay DTV ay TV yow xam yow xamu na am ñoo xam ne fii euh. dañ fay nekk mais yow dañ lay dañ lay siis <laughs> parce que nee na ñoom boo sañoo yow da ngay absenté doo ñëw et puis ñoom loo sañse ñu xool la boo ñëwee euh. ñu ne lii la sañse tey lii la sañse ëllëg dañ lay jéewa jéewa jéewa jéewa jéewa jéew bugguñu la tey bugguñu la ëllëg màkk centrale bi di soxna Fatima Evans moom ci boppam mu ngi feggoog tokk benn jëm ñaari camara euh, euh, euh, sëñ Khadim waaye tamit di Kara sécurité tonton Pierre ci jàppale bi aw Diouf coordination édifice ak Kouthia Show tige ki ah, fait le buzz moom tamit ci ñu nag ak euh, fi nga xam nañ tamit ñu fi toog ñëpp ak ambiance de Kouthia Show yëpp di leen ñaanal jàmm ak sponsor yi waaye bu ñu sante yàlla suñu borom bi nga xam ne moo ñu sàkk ba def ñu ay doomu aadama ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin di julli ci yonent bi euh, Seydina Mohamed paix s salut sur lui ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag di ziar a diine yi jiital ci njabootu El Hadji Cheikh Omar Foutiou Tall daa dee ziar suñu baay sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides ak suñu papa sëñ Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidiane ak Pape Malick Sy yor kaddu kër ga sëriñ Cheikh Abbas

ndeysaan sëriñ Mouhamed Lamine Ngom ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass sëriñ Youssoufa Mbaye bu xalif bu maam Cheikh Mbaye ca Louga sëriñ Mansour Cissé ca Pire sëriñ maam Abdou Dramé xalif bu Nand sëriñ maam Abdou Cissé xalif bu Jaamal Cerno Madani Taal xalif bu Cerno Muntaga Taal njabootu Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Cissé Njambe borom daaru ca Passy Cerno Abdourahmane Bari Waaliw Kaamin ma ca Europe waxtu ñu wax ak yéen di xam ne moom mooy daje yu mag waaye Cerno Hamdou Rabi Wan président soppe yi nuyu nañ ko sama bàyyi sama sëriñ sëriñ Abo Mbacke xalif bu sëriñ Fallou Mbacke yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Fallou Mbacke docteur docteur ci zahir ak ci baatin yàlla yàlla dafa seen ànd mu lool waaye di ziar sama papa sama cerno di cerno euh, sama sa mora bi nekk ca Fouta yàlla na ko yàlla defal jàmm ak góor gi Samba Ndiaye représentant xalif général des Tidiane président des enseignants arabes nekk imam ratib ca Banjul euh, ca euh, Gambie yàlla na ko yàlla defal jàmm imam Fassou Bodian xalif général de la communauté Diola Serigne Cheikh Saliou Mbacké xalif bu Serigne Saliou Mbacké yàlla fi yàgg te wér di nuyu tamit Cerno Bokar Alpha Ba ca war a fonde samedi ak dimanche bi moo nekkoon ziara bi nga xam ne mooy ziara Cerno Bokar Alpha Ba war a fonde ziar na ñëpp ñaanal na ñëpp ñaanal na ñëpp jàmm ñu fa teewoon ñu fa teewul ak ñu yónnee ñëpp sëriñ bi di Thierno Alpha Bokar Ba Thiawara Fondé doon def ziaram fii ci amitié nee nañ yóbbante bi naa ko jàllale ci bépp taalibe ne gërëm na ñëpp sant na ñëpp ñu ñëw ak ñu ñëwul ak ñu yónnee yëpp yal na yàlla defal yoonu yiw Thierno Ama Mamadou Harama gay nekk ca ñànkee di ñu ngi koy ziar alaaji Mouhamadou Gaye nekk ca Mbour tefes góor yàlla ba ak Serigne Habib Gaye mu wax dama sëñ Mansour si ziar nañ ko alaaji Ousmane Ndiaye waaliw Kaamin la di ko ak Serigne Mama Sugu Waadaan di waaliw Pire mi nga xam ne moo séexal papay Awa Kara di Cheikh Adama Niang borom xecc ñoom ñaari jëmm yi yàlla na yàlla defal jàmm may fan bu gudd wér gu yaram alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk sa pasi sëñ Karim Mbacke borom pale ba ci ndindi ñu ngi koy nuyu ak maman Meng bi xam ne mu ngi ziar sëriñam sëñ Abdou Karim Mbacke cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean ak abbé Roger maalem paroisse ak église yoo église yoo leen di ñaanal yàlla may leen kendalu jàmm ci xel mu sell ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd wér gàmmu international bu buddi sama baay moo koy def sëñ Mansour Sarr xalif euh, di euh, xalif bu sëñ Muniru Sarr ñu ngi koy ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram moom mi nga xam ne mooy den sama bàjjan di Adja Kinne si bi ñuy jooy ba tey de noppeeguñu yal na yàlla leeral bàmmeelam Serigne Babacar Abdoul Aziz si ci Tiwaawan bu Banjul alaaji Aliou Maska ak sama yaay Ajaratu Daara Cissé si Gambie ñu Sey serviteur de l'islam kilifa diine yi ñu ngi teewlu émission bi ñu leen di ñaanal ñu ñaanal ñun tamit ñu ngi ma nga ca nekk ca Ñambur Siin di am mbégte contentement bu mag ci kilifa diine yooyu nga xam ne ñu ngi ci réew mi Cerno Yaya Ba Waaliw Kaamil nekk ci Richard Toll ziar nañ ko Chérif Abdoul Moutalib Tidiane Tidiane sët Cheikh Ahmed Tidiane euh, ca Pikine yal na yàlla guddal fanam di nuyu sama papa bopp di El Hadj Ousseynou Diop nekk ca biir Kama bëgg baay ñu ngi koy nuyu ak imam Mansour sekk nekk ca yëmbal yal na yàlla dëgëral taxawaayam. di ñaanal waaliyu kaamil bi di alaaji mbàkke tandian rebel taala anhu moom mi nga xam ne nag ay doom ñu ngi ko téel li nga xam ne moom leen moom la leen dénkoon Baye Niass tandian coordonnateur daara ja ci Medina tandian ci Diourbel alaaji mbàkke tandian alaaji oumar tandian ñoom ñaari ay xalif lañu yal na yàlla defal jàmm seriñ Bassirou Sarr di muhaddamu à Kaolack nekk foofu ca Ngaan Sarr ñu ngi koy nuyu Serigne Mame Samba Dramé xalif bu Serigne Mactar Kala Dramé nekk ci dëkk bu ñaan Dramé ndimb di kilifa diine bu yiw ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak yaram di ziara tamit njabootu Serigne Saliou Diouf Mbuuf ki nga xam ne mooy xalifam di Serigne Xaadim Diouf sama wëlëre waaye nag jëwriñ ba di sëriñ Modou Diouf mi mu tuddee gaynde Cheikh Saliou Mbacké yal na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram di nuyu tamit sama xarit sama sama sama sama sama sama sama sama nit di alaaji Cerno Bari Fat Fat nekk ca Yoof ca Gàmbi yal na ko yàlla defal jàmm Cerno Mouhamadou Amadou Li xalif bu Daaru Kabaala ca Fuuta ak Cerno Cheikh Ñang la waaye tamit kilifa la yal ko yàlla defal nekk ca Dunguru Alpha ca Fuuta ñu koy nuyu sëriñ Mouhamadou Moustapha Saw Kaamil ak euh, moom mooy xalifa suñu suñu maam di xalifa maam Abdoulaye Sow bu Dagana di ziar tamit doomam bii di taam bi Serigne Ahmed Dame Sow Moustapha yal na ko yàlla defal jàmm di ziar suñu papa bopp di Alaaji Mansour Mbaye président des communicateurs yal na fi yàgg te wér yal na ko yàlla defal sàmm sàmm ko sàmm njabootam sàmmal ko ay fanam tamit mu yàgg fi loolu te wér góor gi Mansour Mbaye yal na yàgg yal na yàlla yàlla guddal fanam Serigne Ahmadou Seck di bu bu Alaaji Set Seck nekk ca Khourdan ca département Koungheul nuyu nañ ko Cerno Alassane Mbaye di waaliw Kaamin taaliba Cerno Aliou Thiam moom tamit waaliw Kaamin la ñaari cerno yi yal na yàlla guddal seen fan di ay waaliw Kaamin yoo xam ne fu ñu sukk ñaan fa yàlla dafa barke yal na yàlla defal jàmm Euh, di delluwaat di gërëm tamit bu baax a baax baax suñu yaay nen ne gàlle koréra yaayu umu Aliou Thiam moom tamit ñu ngi koy ziar Serigne Cheikh Baara Amar nekk ca naameen yal na ko jàmm ca cil ma dëkk ñoom Pape Cheikh Diallo Serigne Idrissa Diakhaté Serigne Ousmane Diakhaté imam raati bi Alaaji Idrissa Diakhaté mu ngi koy ziar di ko ñaanal fan bu gën a gu yaram waaye sama yaayu bopp nag di ajaratu nday Sofi Taal mu Cerno Muntaga Taal borom Alpha Voyage yal na yàlla gudda fanam jigéen ju baax ngi ni yal na yàlla gudda fanam delluwaat di ziar Serigne Djili Gueye bu nekk ca Touba ca xayma ya chef mara bu dinaa leen wax nag moom ci moom ci kanam tuuti dinaa ñëw ci seen jiri mi ndax am na xibaar bu ma jot ci moom te dañ ko bërale léegi mbokk yi kilifa diine yi yal na yàlla guddal seen fan kilifa diine yi yal nañ fi yàgg na leen yàlla sàmm mbooleem kilifa diine bu nekk ci réew mi te fi yeewoo yal na yàlla guddal sa fan ñi nga xam ne dañoo dëddu àdduna yal na yàlla leeral seen bàmmeel worma bi ñu leen di wormal yal na ko yàlla sàmm sàmmal leen defal leen lépp loo xam ne day teggi gàllankoor ci seen yoon bi nga xam ne mooy yoonu siraatal mustaqim yàlla ko yàlla def yàlla may leen fan bu gudd may ko seen njaboot waaye ñun tamit yàlla bàggeel ñu fi ñu yàgg fi lool ñu lay ñaanal ñu ñaanal kilifa diine yi yàlla ñu fi yàgg ti wér mboolem kilifa diine bu dégg sa tur ak ku déggu sa tur ñaan bi ak yéene bi ak warma bi ñu leen warmal egsi na ci yow waaye mbokk yi balaa ñuy ñëw ci Cissé Lô dañ fay am sénégalais boo xam ne ñoo ko Abdou Khadre moom mooy séeri soxna Faati sénégalais la boo xam ne mu ngay dund ca Italie waaye mbëgte ak contentement bokk na ci li tax mu dagg billet ñëw seet ay mbokkam waaye ne du fi du seet si ay mbokkam te jaarul Kouthia Show def témoignage boo xam ne foofu mu nekk ci Italie am na yëg-yëg boo xam ne daal moom mënutoon ñun ñëw toogaale ko moo tax tey moom la ñuy dalal suñu plateau mu am lu mu wax sànn ay kàddu ñu dem seet si Cissé séeri soxna Faati moom la ñu woo ci plateau bi. jërëjëf waay. waaw waaw bu demee Thiel. avion la jël. waaw. ndeysaan. waaw waaw. waaw waaw. jërëjëf euh, Abdou Khadir xale yi la teeroo vraiment di kontaan si sa teewaay tey euh, di euh, di la laaj nag sa tànk Sénégal xam nañ ne ñëw seet say mbokk la waaye am na lu tax nga jaar Sénégal waaye jaar ci plateau Kouthia Show ñu lay wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu dalal jàmm. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. waaw alhamdulilah bisimilah inna wali yàlla. jërëjëf Serigne Touba. waaw Kouthia dama ñëw sa émission daf may neex trop ndax. depuis fële. ce Italie damay seetaan sa émission te tamit diaspora sénégalais bi yëpp dafa am loo xam ne da koy def si ñoom da ngay gis nit day liggéey stressé mais bu taalee Kouthia rek dangay gis nu ñuy bëggee di kontaan seen problème yëpp dañ koy fàtte. tàcc leen loolu ndax wéetaay ndax wéetaay bi nekk foofu da leen di jàpp daal. ma ni nag man ñëw naa Sénégal def naa modèle waaw léegi liggéey naa ak maison de mode yu mag yëpp ci Europe. may nag balaa may ñëw nag Sénégal ku may njëkk a defal émission kur sargal sénégalais yi nekk Europe ndax mu leen di dimbali ci ci wàllum humour ñuy ñuy ñu ñuy ñu ñuy bëgg. ñuy bëgg ñuy gis mënuñu gis seen jabar mënuñu gis seen do seen seen seen ay mbokk. mais Kouthia moo leen di wéttali may nag balaa may jaar fenn. di tàmbale lenn foo ma ñëw sargal Kouthia. jërëjëf waaw. <laughs> moom moom moom artiste la bu mag boo xam ne dafay liggéey ci modd di liggéey ci ay affaires yoo xam ne luñ fës la mhm. maanaam publicité ak modd yëpp da ciy liggéey nekk ci mhm. jàmbaar nag sénégalais boo xam ne ma ngi fay def lu am solo mhm. ndax bu fekkoon def lu am solo kon tey lu fi jaar tey lii muy wax nii ñi koy seetaan ci diaspora ñu koy dégg dégg wax ji mu wax dafa ne moom ci li muy yëngu ci la bëgg teral Abou Bilal ndax bokk na ci ñi nga xam ne day dindi stress sénégalais waaw teraanga jooju lan la teranga jooju moom yàlla rek la ko mën fay. anam waaw. <laughs> teranga jooju lii may. waaw kay eh, eh, madame kaay jox ñu teranga ji ayca ayca waaw jox <laughs> bien. waaw voilà ah monsieur teraanga jee ngi nii. moo nekk nii. waaw moo nekk nii ah macha allah macha allah. waaw ab ah, ah, moom ab costume la. ah boo xamante ni nag bokkul costume yi sénégalais yi. ah ah waay waay sama waa ji waay ah waaw lii doon lu bëri lool. kii la kii la kii la lii moom macha allah. <laughs> waaw waaw waaw. <laughs> waaw ak cravate ak ndeysaan gis nga kontaan nañ trop waaw fii la ëppee yaa vraiment lii nga def nii xeebuñu ko parce que nit ci li mu lay bëggal rek ci nga koy mën a bëggal wér a boo def nii yàlla defal yoonu yiw amiin trop ndax tey bu la neexoon nga yóbbante ko mais da nga da ci plateau bi wan ne sénégalais la nga leen nga ko def di dem ci plateau Kouthia Show wax ko cofeel bi nga xam ne am nañ ko nga nekk ci Italie ban dëkk la. man Rome laa nekk ci Italie waaw Rome laa nekk. dëkk bu yiw ndeysaan waaw dëkk bu yiw waaw. mooy ñëw naa indi naa ay ay ay ay idées yu bëri yoo xamante ne moom laa ba dëgg def fii Sénégal. jàppale jeunes yi ci wàllu mode jàppale jeunes yi. indi naa tamit musique boo xamante maa ngi xool ndax Youssou Ndour laa ko war a defar wala wala Wally. complet nga. waaw artiste complet la yow daal ñëw nga Sénégal samp ñëw naa Sénégal samp samay tànk waaw. jërëjëf waay te loolu lépp dinañ ko dinañ ko promouvoir lu jàng fële. ñu indi ko fii wan wan ko xale yi. Sénégal jëm kanam. may leen ko jërëjëf jërëjëf waaw waaw waaw jërëjëf nag bu ñu jógee ci teraanga jooju dañuy dem seeti Moustapha Cissé Lo am na lu Cissé wax wax <laughs> ay ta ñu dem seeti Cissé maa ngi leen di nuyu euh, di leen gërëm di leen sant dama changé look dama jënd ay lunettes yu bees pour ñi nga xam ne lay waxal ma leen di xàmme parce que am na lunette yoo xam ne dafay lëndëm nit des fois dina wax ak yow doo ko xàmmee waaye yi nga xam ne mooy cornolis yi mooy cornolis mooy ay weer yu yàgg yoo xam ne tubaab yi moom lañ doon sol du n'importe kii nag moo koy sol du lunette ñaar téeméer yi. moo tax nag vraiment ma kontaan ci li nga xam ne mooy sama taxawaay bu bees bi. ndax su ma nekkee maire dakaar li ma doon sance yooyu dama koy bàyyi beneen style laay indi. waaw su ma neexee dóor sama ay baske teg ci sama jiin ak liket bonde ci town bi ni ko xale yi di waxee parce que dakaar laay gérer te Dakar soo koy gérer il faut nga ànd ak waa town bi des fois ma dëngal casquette yëngal pantalon teg cravate def gilet bu ndaw di doxe nu ma neexee ci biir salon ñi nga xam ne dañu yaakaar ne génnu Khalifa Sall daf may déranger ñu ngi juum man lii laa doon ñaan yàlla Khalifa Sall génn ñëpp xam ngeen ne man may premier candidat déclaré pour nekk meeru Dakar ñi nga xam ne ñu ngi wax ci suuf waaw si sa loo kii génn waaye du ko arrangé ñoom dañ na xamul ndax dama nekk koo xam ne yéen a ko wax dëgër naa fit du ma tapet du ma daw du ma arrier te ñaar laa leen di xamal Khalifa Salloo ak keneenoo ak ku munti doonoo ñoom ñëpp nañu xam ne Cissé taxaw na sapp ay tànkam damay nekk meeru Dakar man duma complexé ñaar naa leen ko xamal réew mii tey Sénégal bi ma nattee sama bopp gis naa ne waa yoof ñoom jox nañ ma seen xol ba pare. waa Nord Foire waa jox nañ ma seen xol ba pare. Khalifa Sall nag Grand Yoff maa ngi xool nu fay duggee waaye man duma dox guddi bëccëg ndar kàmm laay dox ndax kuy dox guddi sa affaire leerul bëccëg ndar kàmm laay dugg Grand Yoff xar ko ñaar. mën naa ko am naa ko yéene naa leen ko te bu soobee yàlla danaa doon meeru Dakar Khalifa Sall nag yàlla moo ko génne jaarale ko ci président Macky mais man loolu utewul dara ak sama bëgg-bëgg te bu soobee yàlla waa Dakar bés bu ñu ma joxee mairie Dakar ñu xam ne kuy ponkal bu dasanteg Cissé Lo da nga arrière li ma bëgg nag ngeen jàpp ko mooy bu leen kenn wax loo ne Cissé dafay jéem a ut ay bunton man kese may dem waa APR ñu ànd ak man bañ a man damay dem kenn du ma téye ñoom moomu ñu tamit wax dëgg yàlla euh, kooku ku ku ku jara ñaan ñaanal mu yàgg fi la parce que nit ku yàlla baaxal la koo xam ne lu baax rek lay wax ci lu baax rek lay jëf moom sañ moom sëñ Maam Mor Mbàkke yal na ko yàlla defal fan bu gën a wér gu yaram di ziar tamit moom tamit ñu ngi koy ziar yàlla defal ko jàmm ma nga ca suprime waaye sëñ Maam Mor Mbàkke moom yàlla fi yàgg te wér dégg naa li nga woyal sëñ Maam Mor Mbàkke man nga ko woyal ndax man maa xam mbaaxam waaw ku baax ngi nii avant may dem États-Unis woo na ma ba ñëw mu mu mu tàllal ma ma tàllal say loxo ma tàllal mu ne ma dem jàmm ñëw jàmm am xéwal ñibbisi ku baax nga nii. waaye nag mbokk yi sëñ Jili Gay bi ma fi doon tudd fan yëpp te mu dëkk ca Touba ca xayma ya euh, bi ma ko commencé tudd ça fait maintenant euh, ñeenti émission juróomi émission waxoon na ma ko nee na boo tuddee sama tur xam naa nañ la sonal ci sama numéro xam naa ci dara fu ne la ma nit wooyee ba Brésil ba États-Unis ba Angleterre di ma laaj jëmm ji numéro ndax. xam nañ ko moom bu baax ñi ma ko doon laaj nag jot naa ci ndigal ne sëñ bi nee na ma joxal leen ko waaye di leen xamal ne sëñ Jili Gaye bii teg na seen loxo ñaan ne TFM yàlla na jëm ca kanam nay raw jël pay waaye rawatina équipe Kouthia Show yàlla na yàlla defal jàmm sëriñ Jili Gaye mii nit ku ne woon nga ma diggante Angleterre ak fi nga xam ne moom mooy France jàpp Italie ci lu baax loo xam ne dafa doon jëflante ak ay mbokku taalibe ak ñoo xam ne dañ doon defal ay ñaan moom yàlla dimbali ba ñooñu am ci numéro ñu ngi laaj ci numéro 77 la 144 05 02 77 144 05 02 sëñ Jili Mbay Jili Gay borom baatin waaliw la te borom baatin la yàlla ko yàlla defal jàmm lu mu la ñaanal doomu aadama ci yàlla ànd incha allah di ci teg di ku baax na koo xam ne yàlla moo ko defal ndax ci fi mu bokk ak ci ndey ak ci baay yëpp foo mu nekk borom baatin 77 144 05 02 mooy numéro bi woo leen ko ñu ko doon woo te amul suñu numéro numéro ngi nii. waaye mbokk yi ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag ci li nga xam ne nag moom mooy émission bi ndax xam ngeen ne euh, ndigal ba wàcc ci sëñ Babacar si Mansour sëñ Bay Sy Mansour suñu bàyyi xalif général euh, yi nga xam ne moom mooy euh, tijaan yi. ñu koy nuyu di ko gërëm di ko ñaanal fan bu gudd gu yaram collectif international des talibé cheikh officiel troisième édition célébration de la 4 Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mu ngi am samedi le 12 octobre bii ñu jëm ca CICES à partir de 9h modérateur bu oustaz Pape Kane Fall hommage à Serigne Abdoul Aziz Al Amin man mii Kouthia dañ ma fa invité pour ma teew ñoom ñoom collectif bi ñoo ne ma il faut ma teew ñoo amel ndékki amel ma añ ameel ma reer amel ma paas waaw waaye may kontaanaat une fois di nuyu ki nga xam ne moom mooy ki ne lay depuis cité Kër Xaadim di am mbégte contentement bu mag ci monsieur Sassi Sène responsable politique depuis Bakel. waaye tamit di gërëm bu baax électro euh, électroménager suñu xarala ma nga ca mbedd ba di am mbégte ak contentement bu mag a mag ci euh, ñi nga xam ne sama xaral nañu nekk ci benn village Thiali Marcel Tine Pascal Gueye ah ak euh, Pascal Gueye ak ki nga xam ne moom mooy Moussa Diène Victor njole depuis le village de Thiali mbokk yi ñii ma leen wax nii samay soppe nañu ñoom ña nga ca village boobu waaye dañoo bëgg Cheikh Abdoulah Cheikh Mouhamed Abdoulah Thiam soppey na bi président fondation Kër Rasul maa ngi koy ziar nit ku baax waaye mbokk yi ma delluwaat de maa ngi delluwaat di wax euh, joyeux anniversaire à Ami Thiam madame Sine fukki at ak juróom karaa nee na ma li ma ci fekkee bëri na kon mun naa cee wax mais du ma wax télé moom kontaan na ci nee na vraiment fekke na lu bëri ndax tabaski du benn du ñaar du ñett ba ñeenti tabaski wala juróom tabaski yoo xam ne moom karaa ñëw na sama kër tabaski ko fa vraiment ku am sa soxna war koo gërëm ku baax ngi noonu yal na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram sama soxna Ami Thiam yal na ko yàlla defal fan bu gudd jigéen ju baax la ju am sutura lu ma def rek yëgoon naa ko moom parce que am na loo xam ne tey xëy na su ko amoon nu mu ko doxalee du ma am ñaar te loolu discrétion am la ak pensée pieuse bi nga xam ne mu ngi koy def bés bu ne ba ma ko mayee biyee màkka ba mu dem ziyaara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey musuma gis ci moom lu ko naqari avant et et pendant et après ndax euh, euh, ku baax la surtout Omar wu taal la di koo xam ne tey buñ ko toppantee ci ndey ak ci baay ak ci deret ëllëg mën naa doon soxna moo xam ne ma fa sët direct la Ami Thiam yal na yàlla defal jàmm toorale bi dama koy ndokkale rek ndax fukki at ak juróom ku la ko muñal coow génnul géej gi débordé wul kenn dégguloo ci dara nga ne nemm toog yaay bigge yàlla na yàlla defal sa jàmm vraiment je suis content de de de ma parce que elle me soutient waaw koo xam ne yow musulaa sàppi lu ma def mu reeku émission bu commencé day ree bu jeexee day ree loolu la moo tax nag chaque jour ma may ko benn caaya ndax moom caaya koy daane na vraiment ma femme te góor ñi nañ bëgg seen femme di ko gërëm di ko sant nag ku baax la ku baax la te li tax ma ne ku baax la sa ñaara sax day bu ñëwee sax day xam ne ne yow sa aaw dafa baax am nga nooy doxalee rek sa ñaaral day xam ne yow aaw baax nga yor moo tax maa ngi koy gërëm di ko sant Thiam yal na yàlla defal jàmm ndam toora bur gën Edouard sa Oumar Foutou Tall bi yàlla ko yàlla defal jàmm léegi nag Madické Niang am na lu xew de ñu seeti Madické di gërëm di leen sant di leen ziar di leen wax ne kontaan naa trop ci seen teewaay jàpp naa yoon nag jàpp naa bés incha allah li des suñu kanam ci fan yi dama koy dem Touba su ma demee ziar sëñ bi balaa muy xat waaye tamit fas yéene waxtaan ak mbokku taale bi ñu ñëpp ñu ànd doon ab say ba su ko defee màggal gi daa dee yemb te yàlla def na màggal yëpp day yemb bu ñëw rek dàq sa morom waaye balaa may sore ci wax ji dama leen di xamal ne man duma seen moroom benn ci ñaar mooy wax naa leen fii benn yoon que ne duma ndar-ndar boo xam ne fu ma toog ngeen ndar-ndaree ma dama nekk doomu senegal di sàkk pour jot réew mi kon sénégalais kon ñëpp waaye bugguma ngeen may identifié loo ci région mel na ka man ndar rek ñoom moom nee naa leen diggante ndar ak Touba dama koy benn bopp la. ndar laa juddoo samay maam ak sama yëpp ndar nañu waaye man tuubala laa waa Touba laa bëgg nag lu ma neex bu mu tax ngeen ndar ndar baa ngeen di ko ndar ndaree nit nag da ngay dégg benn yoon wax ngeen ko ñaar ñetti yoon ñeenti émission saa yi ma ñëwee fii rek ngeen topp ndar ndar baa ngi ne te nag xeeb naa nag di leen yóbbu nag ci justice te xam naa ne fa laay mujjee ñoom ndax am naa doom buy entraîné xam ngeen ko day day entraîné foofu si buntu TFM bi xam ngeen ko morom du seen dëgër ngeen bopp na mbir yi nag damay commencé nora kokkuli te man nag du ma seen morom ndax ku ma fekk may wax ak yéen sax bay yëkkati sama kaddu ndax du yenu maanaa beneen yoon soo ma gisee ci plateau bi boole mu ne mu noon woy ne maître Madické Niang borom xale xol bu rafet ki uuf Sénégal mën ngeen ka fent waaye talu leen fent talu leen fent boo leen génnee yéen ci leneen loo xam ne moo leen gën a intéressé talu leen fent yéen si ci boîte de nuit di taxawaalu rek di def lu ne waaye nag yàlla baax na su ko defee ma jàppale ne ñaar ñoo mën a am mooy maa ngi ñaan yàlla si diggante bi yàlla na ab Ablaye Wade jékki-jékki rek xelam na yar ci man parce que tamit wax naa leen ko fii du benn du ñaar juboo rek laa bëgg xam nga ku xuloog sa baay xuloog sa xarit bu dee na jàpp loxo nga war a xam ne kan ki loolu lu lu lu sori jóge na ci man le président Ablaye Wade fu mu juba Macky Sall ma faa bàyyi ndax li ko Macky def man def ma ko man mi nekk na président Ablaye Wade bi coolu jollee ba ñëw ma yóbbu ko faan muy lekk lu baax di añ lu baax di reer lu baax ñu koy toppatoo kenn dérangé wu ko bugguma sax weñ laal ko seytaane dox sama diggante moom te lañ waxoon ci sama diggante moom yëpp daraamu ci ana ñu waxoon ne man damay ànd ak Macky Sall moo ma jox xaalis pour ma campagne xanaa ko loolu bu jeexoon ñu dégg ma ci gouvernement Macky Sall mosu leen ma dégg si leen waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko defoon na ba jaxase ma sama baay président Abdoulaye Wade maa ngi ñaan yàlla yàlla ma yàlla dimbali ba président Macky Sall président Ablaye Wade ñu demee Touba ba ma ko joxe loxo mu daal damay seere ma seere ko ñu daal di ñu daal di lépp lu ñu jàppoon ñu bàyyi ko waaw parce que taalibe la may taalibe man foofu laay waxee moo tax soo gisee may dal seen kaw naan bàyyi leen dar ndar bi bëgguma ngeen ne bañu doon ndar dar waaye fu ngeen ko bëgg a féetalee loolu laay bañ loolu laay bañ rek te nag xam nga xale dafa yem ci a ñu yofu ci parce que man am na yoo xam ne am na lu may seet nag ta ma xamal leen ko nag du ay caaxaan sëriñ tim na ma ma xool ko mu ne ma booy yéexantu booy wax ma lay seexal ah. te loolu xam nga ne su ma neexoon rek waaye xam nga rek boo nekkee ci buntu boo xam ne senegal ñëpp nga war a servir àddina bi ñëpp nga war a servir sama liggéey def liggéey boo xam ne Sénégal ñëpp ko rafetlu ma toj Kaolack toj Louga toj Ndar toj Grand Dakar toj Passage toj Waagu Ñaay toj Yoff toj fépp moo taxit nag ma ne Adja Khoudia anam kaay dama koo woo ba mu ñëw nag Adja Khoudia lépp lu président Ablaye Wade bëgg jour màggal bi nag na ci nekk mu ngi nii takk ay bagaasam di ànd ak man dañuy dem Touba danañu cere danañu laax ak lan ak lan Adja lépp yaa ngi koy préparé pour dara bañ a sedd ngurbaan lépp bu soobee yàlla ndeysaan mu ngi nii dama laaj bu baax bi borom xolu jamaa bi dee leen koy woo ci xol déet déet déet déet bu leen way ma ñëw moom nag Adja jo dama koy gërëm di ko sant ndax fan yëpp da ngeen ko gisul génn man rek maay génn ba ay mbokkam nag di ko laaj naan ko Adja Khoudia mbaa jàmm la xam nañ ne sax du dara ndax sa diggante président euh, Macky ma dikkee jàmm rek la moo sax tey sax la ma forcé la ma dimbali ma rek gis naa génn télé kaay ànd ak man kon Adja Khoudia yaakaar naa ne caméraman yaa ngi lay gis dara amul dara xewul yuusi zeewul ba saafu bolul Barça football Kouthia Show demul kon tey li am moom mooy Adja Khoudia ngi nii ma dikk ñaa ngi nii waaye léegi nag da ngeen koy way boo xam ne moom ne bëgg na yooyu ngeen di wax ay ndar ndar ndax moom ndar ndar la waaye man yooyu moom du ngeen ma ci génn ay sa la nga doon way lan la ci moom waaw waaw waaw loo waxati xoolal télé bi say mbokk ngi nii Adja Khoudia ñu ma toppee fan yëpp booy dama ci télé yóbbu ma Adja Khoudia télé baa ngi nii xoolal ñu xàmme la dafa xoolal télé bi nga ñuy dëgg waaye tamit di am mbégte ak contentement bu mag ci képp koo xam ne tamit euh, soppe nga di wax dédicace à May Dabo ma maman Maguette Diop depuis HLM1 ma mami Bass madame Cissé euh, yaayu euh, bébé Diama naata Sène depuis Soprim de la part de Soxna May. ñuy nuyu tamit dédicace aji Adji Ndeye Koumba Diouf chéri Mame Saliou Ndiaye les enfants depuis Cité Gorgui dédicace à Amath Faye depuis Mermoz Tata Kiné Ndiaye euh, Ballé Aïssata Ndiaye Ballé ñu ngi leen di nuyu dédicace à Cheikh Ahmadou Kara Noreyni euh, jëwriñu Miss Baax Fall maman Fatou Dieng euh, yaa Soxna Fall madame Dieng yaa waa Nourul Jamal Leena Ndiaye sa maman Awa Gueye toute la famille Dieng depuis Wago waago depuis Wagu Niaye euh, Fary Dieng depuis Wagu Niaye actuellement au Maris euh, dédicace à Khady Gueye Sarr chéri Makumba euh, Makumba fan su Kouthia Show de la part de Iba Sarr Yof Ndangaañ joyeux anniversaire à Kodou Ndiaye chéri Badou Bada Ndiaye Adji Adja Nene Dem militante Arona Dia Arama Ndiaye Dieye Sala Ndiaye Mbayang Bey Sane Ndaw depuis Kolda Babacar Ndiaye et Adji euh, Mengue Dia Mengue Dia de la part de Pape Diagne vendredi journal TFM dédicace à Moussa Bokar Thiam maire de Ourossogui Sirif Baboy Aydara depuis Thiakone ñooñu ay soppe nañu ñu mag yoo xam ne ñu ngi seetaan émission Kouthia Show waaye nag mbokk yi ñuy am mbégte contentement bu mag di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoo suñu soppe Serigne Djili Gaye Touba ca xayma ya chef religieux bu sama xarit sama soppe ni ma la doon wax ne ne àddina ci boppam ba ma ko commencé tudd nañu may may laaj turam ndax ay baax baaxam borom baatin bi numéro wax naa leen ko 77 la 144 05 02 ndax samay nelaw ñu ngi koy yàq guddi gi naan ma sëñ Jili dañoo réeral numéro nañu soxla numéro ngi noonu 77 144 05 02 woo leen ko borom baatin baa ngi lu leer émission bi jeexagul de ba tey ci fukki at ak juróom ma ci delloo njukkal sama sama soxna yàlla ko yàlla may fan bu gudd wér gu yaram caam caam bookar caam Elimaan lamtoro ɓurgueɗe alwarda fa ñafade tamede kewo jingode kewo yitiri biɓe ala aissata guelleje mbaɗe humo ko kaani ndiya mo gattudama mo gattudama wonkala yuɓata wonkala ñumlo so haali ko goddel an ko lamtoro ɓurgueɗe alwar sata oumar fouti tal ami cam yana yallah guda safanna yo allah may lefon bu gudd ak wérgu yaram defal la jàmm defal la xéewal danaa ko jël après ma ne mbokk yi am na Sénégal amatina ndam vraiment nit ñi accueillir lion yi fii ba teral leen am na jigéenu sénégalaise boo xam ne ñoon ko Awa Ndiaye ma nga juddoo Ndar màggee dakaar jàngee Immaculée Awa Ndiaye mu nga juddoo Ndar jàngee màggee dakaar jàngee école Immaculée dem Espagne def fa vingt 26 ans am fa jëkkëru sénégalais bu ñu naan Jawar Ndiaye mais barki Demba Ndiaye la am prix boo xam ne réseau sociaux yëpp bind nañ ko. police bu mag bi nga xam ne moo gën a mag te Tenerife ñoo jël ab sargal médaille li gën a kawe ñoom ci police ñu daal koy jox xam nga lu tax parce que moom benn ma ngay taxawu sénégalais ya ñaari xale yi nga xam ne dañuy jël gaal bu ñu ñëwee ba foofu ñu jàpp leen pour ñu mun a wax ak sénégalais yi moom la ñuy woo mooy tax di wax ku ci am problème ak sa jëkkër boo par naree plainte te déggoo español te sa jëkkër jiitu la fa dégg espagnol ah. moom la ñuy woo moom mooy traduire ba pare mu ëlbati ko ci li muy am ci wërsëgam di ko séddale ak doomu aadama yi sénégalais yi nekk foofu oh, Awa Ndiaye sagal na sénégalais yi sagal na Afrique sagal na jigéen ju ñuul kenn yebu ko fa ambassadeur nag bii di Mariam Sy moom ci boppam yëkkati na ay kàddu yu rafet yëkkati ko ci kaw ndekete làkk jàmbul mën nga ci am teraanga ah. xolal kii olof la ci ndey ak ci baay baayam du ndaw de ci ndey ak ci baay mu dem ba làkk jàmbur bi nga xam ne moom la fekk ñu koy làkk moom moo leen ko dàq ñoom ba espagnol yi ñoom bu ñu cangee sax dañ koy woon ko kaay cangarti ñu ci li ñu càng léegi nag moom mooy ñëw nag ñu wan leen liggéey moom foofu yemul ci interprète ak tradition de waaye ku ci am problème xaajugu da nga koy fëgg sax mu yàq ay nelam wax ak waa Espagne ñu dem seeti Awa Ndiaye jërëjëf merci jërëjëf donc moo wan leen sama liggéey fii ci Espagne nan lay demee voilà lan mooy problème bi soxna si lan la madame waaw sama jëkkër laa fi nekkal mu may dóor guddi di ma dóor bëccëg xam na ne man dégguma espagnol damaa ñëw nag pour porter ko plainte. <laughs> defal naa ko may ma tuuti rek bàyyil jooy yi. altina poolice altina poolice defartana di di ñorano trabajana ken korena joone <laughs> ala kene kone trabajana nonos cesti bartanana barta daf lay dóor way dóor sama yaram yëpp a ngi ni dag bartana bartana karna tana bartana tayaar na mais musu la gaañ gaañ na ma sama yaram yëpp la gaañ fan xam na ne man dégguma espagnol mu ngi nii forte na kana mbaggee na tostar kana to to to kor konte ba wala to doore parce que sa jëkkër mu tudd ngi tudd Ablaye Ndiaye kartana na Ablaye Ndiaye no c'était koro korta ma botoro fa la liggéey moom ouvrier la kii na na ouvrier sana koro koro ma sana koro koro cente baceele bacokone bartode tarbayana ena kadi teri fiani kon kon coora kadi prépare toor mum ɗo ante kala kadi a ceeregi mu ne ndax da ngay jooy nii actuellement waaw ngi jooy para kadi si jima ba coor i waaw darka kaar na ok ma asakraa bari coor ko nekk fa waaw jiituma police maa ngi ñëw léegi wax naa ñoom jërëjëf kay kay madame l'ambassadrice kontaan naa trop waaw. waaw awa man maa la gën a kontaan. moo tax tey lii nga xam ne police bi ñoo ko def ma ne man maay ñëwal sama bopp pour indil la ko ndax wax dëgg yàlla gis nañ liggéey bu rafet bi ngay liggéey fii ci Madrid macha allah bu jigéen ñi euh, waaw bu jigéen ñi amee problème nga taxaw bu góor ñi amee problème nga taxaw li nga xamante ni mooy xale yi ci gaal gi bu ñu amee problème sax nga taxaw macha allah nga nekk jigéen joo xam ne waxuma la sax Sénégal mais dama naan si gir nga doomu Afrique yëpp yëpp yëpp yëpp macha allah ñu kontaan bu baax nag ci sa liggéey. macha allah waxuma la dara mais li ngay am sax da koy dimbale ak ñi nga xam te ne fii mooy doomu sénégalais yi nekk fii kon macha allah dañoo soxla jigéen ju mel ni yow rawatina nag fii nga xam ne fi nga nekk di jàppale ñi nga xamante ne ñoom nga nekkal man nag damaa ñëw ci turu sénégalais yépp li nga xam ne mooy police bi ñu ko defee dama ne man maa la koy indil te sa liggéey ci kàttanu suñu borom Macky Sall dina ko yëg man Mariam si nag moom man Mariam si kontaan naa trop sénégalais yëpp kontaan nañu wax dëgg yàlla comme ni ma la ko waxee dinaa dem ba ci Macky sàll waxtaan ak moom bu baax ndaxte li ngay def sax umpul umpul kenn gis nañ bu baax li nga nekkee kon jaajëf liñ naan euh, jaajëf massa fajul kii mais sedd na xol ñun dañ naan jaajëf amuñu sa fay wax dëgg yàlla sigil nga ñu sigil nga ñu bu baax a baax <laughs> vraiment kontaan naa mhm. parce que prix bi mhm. def naa fi vingt six ans mhm. kon bu ñu ma ko joxee ci euh, jàmbarte la ak ci li nga xam ne moom mooy ñëw fekk laak jàmbur mel na ku ko nàmp mhm. ba mën a euh, taxaw ci diggante sénégalais bu am problème ak espagnol wala ñuy jël gaal gi ñëw fii ñu mhm. war a wax ak ñoom wax ñoom ñoom yëpp dama ciy taxaw dëgg la lii ñuy wax nii nag ci olof mhm. te ñoom tubaab yi ñu taxaw nii dëgg xam naa ñu ngi wax na lan la ñuy wax waaw pour ma leeral ak ñoom nag ñu mun leen yeewi waaw ma bu ko gërëm gërëm leen ñoom ci espagnol su ko defee ñoom ñu xam ko macha allah bertaane ko suñ cootee ne No trabaja gente cadne, cinco quattro banchiere contorne matada. mu carde mm-hmm. ne Sénégal a korto baabiyoono mm-hmm. mm-hmm. bambino ne parta kammo alta cartano kono noon siicono maaco bonne ko boona ka pirtele wacaani ka grasese sumtoone kapoone dortomuutininkaane mbaannon koole mi sinco moonce pinto karakapaane baali kon to maani kaata kon jawar njaye seeri koko ɓanndu ka mi amore jawar njaye ti amore nabbiyono ka mbaccol ti amore jawar njaye punchene panen ko sinco karta ka bana minto kamina farka bana ko tonte alkarena ka barbatarna sicina mani wa sicina mani sicina konta kona bana mecione ka bani yo wallahi wallahi sincione mancio bartale ka mm. baranna ka bol mm. fakane ko mina barakan saltin kola kana kara gracias machane konto awa njay njawar njay la kana bete bete non torna capati mincho Espagne na terefi kana Calgale Senegal kala sistenno ni ka parta ko mariage lina konte pani bonte laño ko lebu horta kana ko sene kana kala stena immigration barko portene kapa fate kontaan nañ de mu cuunte ka muuncu ah. naane ka bata ñuunti ñukkutinaana toone ka baana punteera ka bonte paare ko hasiala gracias sena ka monte mi awa njaay ti amoore njawar njaay dino ko sénégaliste a yana jigéen mm. góor mm. maak ndaw cumpeena kaabana <laughs> muunci ah, kalka baarana taka toone sincala sénégaliana bakanana timore jawar ndiaye banta ko funta ka para kala tantano ko rotono ko nin kente ka sabane allankintorono ko mbuuce bakarena